24 heures ak Paquito 24 heures ak Paquito sur la Teranga Sénégal la TSTV waaw gaï, yi moo xam ku mu mënti doon personnalité bu mu mënti doon ci public muy célébrité ak koo xamante ni di ngeen koy man maa leen di ay 24 heures la ñuy passé ensemble dalee ko ci ndekki ba ñu génn xool dëkkandoo yi ak mom ba fa muy wala sax ba studio mba la def. Anando ak mom le soir khol ay activité ba sax ci guddi gi ñu daldi delu ci kër ga rérando ensemble mu daldi di wax ak ñun wax ak sénégalais ak aduna entretien bu amul fenn 24 heures ak Pakito dama koy assurer équipe de jeunes ñun ñëpp ñu àndandoo ñew fi lay xewé ci Teranga Sénégal TV man maa koy assurer ak équipe de jeunes ñu Anando. est-ce que nga pour wax askan wi yaay kan li da wax askan wi ki ngeen bëgg qui ngène sop qui ngène fond Qui di sa référence kan la donne man Pakito ci 24 heures ak Pakito nga ànd ak man équipe bu jeune and ak yow ñu ko ko ci Sénégal TV.